benn ci xàll yu mag yi jëkk ci dëkk bu tedd bi di Touba nekk ci ndaamaatu jamono yi kët ay jafe-jafe yu tar la indil askan wa fa dëkk xàll wi nga xam ne ni képp ku jóge ci jumaay ji wala nga jóge marché Ocass jëm biir ndaamaatu ak li ko wër moom ngay romb lu mat ñetti at a ngi nag ñu gas ko bàyyi ko foofu ba tax mu indi ay jafe-jafe yu mag ci wàllu dem bi ak dikk bi la ca gën a yéeme xàll wii kët moom moo romb hôpital bu ndaamaatu ci bis bi nga xam ne ni askan wu fa dëkki rawatina ndaw ñi lëkkale ci kuréel gi tudd mouvement boole defar li ñu bokk doon seetalaat li wër yoon wi ñoom kat dikkaat nañ ci situation bu métti bi nga xam ne nii lu mat ñetti at ngi ñu koy dund. waaw sëñ Baara Mbakke dëkk fii ci Ndaamaatu. Euh, bokk ci njabootu Serigne fallilu Ndaamaatu dafa bokk ci ville yi gën a jege jumaa ji Ndaamaatu dafa bokk ci ville yi nga xamante ne moo dafa bokk ci ville yi gën a am impact ci dëkk bi ndax gis nañ ne hôpital bi mi ngi nii même pas cinquante mètres kon. tali bii nga xam ne moo jugee gaar bu ndaw jugee jumaa ja ñëw ba ci virage ndaamaatu jëm ci hôpital bi war nañoo taxaw def seen yitte ndax gis neen ñuy def Touba ay travaux yoo xam ne bii moo ko gën a farlu moo ko gën a nekk farata ndax lan jege na jumaa ji te dafa am fu mu jëm muy si hôpital bi ndax gis nañ fi ay jafe-jafe bokk nañ gis nañ fi ambulance boo xam ne dafa ñëw pour bëgg a jaar ci yoon bi dem mënul jàll da gis ne jigéen ja nekk ci biir nee nañ ma ngay jooy ndax lan yoon wu ñàkk baax nga xam ne dañuy tegg ñetti at a ngi nii oto yu bari dañuy teggi tey corniche bàyyi nii hôpital Ndamaatu bàyyi nii tey ambulance yu bëree bëri di sëf doomi aadama yi ay jigéen yi nga xam ne tey so ñooy suñu yaay bu méttee ñoom la woon bu neexee tamit kon ñoom la war a doon dañuy bëgg a dem fii pour am doom pour ñu jàll sax day nekk problème fii la ñuy nekk yéeg ci ambulance di yuuxu ba ñun ñooy jug guddi gi lu mën di metti metti ambulance bu fi ñun ñooy jug jëlee ko fi. melokaan wu doy waar wi nga xam ne ni nag am na fii ci télé bi romb Ndamaatu ci hôpital bi ay junne nit di ci aw bët bu set ñu kët am na ñu njàqareel bu baax a baax ci nawet bi nga xam ne ni mu ngi waaj a ñëw te yoon wi nekk ci melokaan wi lee gis nañ ne que nawet bi daanaka ñu ngi ci biir ndax tey rek daanaka ci guddi gi xaw na ci wiccal fii ci Touba te su gënee taw fii dina gën a doy waar ci ci ndox nga gis lu ëpp ay trente nangam kër dañ fiy jóge boo demee ba ci jumaa ji rek jumaa siñ Saaliw ji nga xam ne ajjuma dañ fi julli daanañ dem ba dootuñ fi mën a julli ndax fees. buñ sukkandikoo ci ndaw ñi nga xam ne ni ñoo doon àddu jëmale ci mbir mi lee nee na kat am na ñenn ci ndaw ñi ñu ñàkk seenum xëy tëj seeni bërëbu liggéeyukaay yi ngir loraange yi nga xam ne nii yoonu bon wile andi na ko. bëri na itam ay palaasu liggéeyukaay yu bari yu fi tëje da ngay xool boutique yu bari daanu nañ téer yu bari daanu nañ kenkaayir yu bari daanu nañ ndax lan ñetti at a ngi nii tali bi doxul kenn ñemewu fee tijji tijji benn place ndax place boo fi tijji mu daanu. waaw yoon bi li ñu ci gën a métti sax mooy jeunes yi nga xam ne tey nekkoon nañ fii di fi daan seen doole. te instant yi ñoom ñëpp ñàkk nañ seen liggéey jom ak fulla ak fayda moo leen may ñu nekk di engagé ba tey tey ñu fas yéene ñëw defar lii nga xam ne moom mooy tëli bii nii. ndaw ñi kat ne lii kat dafa mel ni ak ceetaan la goo xam ne nii. nga xam ne nii ñoo ko war a defal seetaan nañ ko yoon wi di waa Ndaamaatu. nen ceetaan googu kat kenn jiitu ci politiciens yi nga xam ne nii dañoo nekk fii ci Touba rawatina ci Ndaamaatu. moo tax ñu ne nag mayatul leen benn yoon ñu ñëw foofu ci Ndaamaatu ngir nag politiser. situation bu doy waar bi nga xam ne ni ñoom askan wi ñoo koy dund. mosuñoo gis benn yoon ndawal euh, président de la république wala ñenn ci ñi nga xam ne ñoo yore wàllu assainissement yi wala yi ñu ñëw fii pour def ci liggéey bi bu buñ fi mësee ñëw itam boobaak léegi gisaguñu benn effort bu nga xamante ne def nañ ko fii pour jële fi ndox mi wala jë jële fi salte gi fi. politiciens yi nga xam ne ñoo ngi fi ñëw nag ñoo ngi leen wax ne tey dina dakk fii bépp politicien bu fi ñëwati indi bépp politicien boo xam ne ñëwati nga fi indi média pour politiquer Touba Ndamatou dina dakk ay jeunes ñoo fi nekk yu ah, engagé yoo xam ne tey loolu day dakk képp ba ñu ci dara nag. milliards koy defal buñ ci mënoon dara ñoom duñ leen ci woo ñun dinañ ko defal suñu bopp ndax gënuñ ñu bëgg réew mi gënuñ ñu gëm réew mi. xëy na nag suñu borom dogal na ñun liñ mën ko su néew yor suñuy juróom ak suñuy fukki dërëm na ci ay ratu ak i peel ànd ak ay xale yu ndaw nag yoo xam ne tey heure bi waroon naa fekk bëri na ay xale yoo xam ne ñi waroon nañoo fekk ñi ngi ci laneen wante ñun dañoo jël suñu lépp jébbal ko Serigne Touba nekk ci dëkk bi pour liggéey pour lu jëmale dëkk bi kanam ñu nekk ay jeunes yoo xam ne état bi soxla nañu ëllëg ñu xam ne am nañ suñu wàll ci réew mi moo tax tey ñu nekk fii bàyyi lépp lu ñu doon def bàyyi lépp suñuy kër ñëw fii jël suñuy fukki dërëm ak suñu ñaar fukki jëndee ko ay matériel pour jële fi ndox mi. kuréel gi nga xam ne nii mooy mouvement boole defar li ñu bokk fare ci ndaamaatu te doon amal liggéey bu am solo ci yoon wi nga xam ne nii ñetti at mu ngi leen di andil ay jafe ñu ngi xamal njiitu réew mi kat ne ko ndaw yi nga bàyyi ci dëkk bu tedd bi di Touba liggéeyluñ ko dara liñ koy wax ak ni situation bi demee wute na lool. président Macky Sall ñoo ngi lay xamal ne la maanaam ñi ngi fiy yebal ñuy ñëw ne dañuy vérifier chantier yi fii chantier amu fi sax démarré wuñ chantier ba chantier di àgg te ay kilifa yu mag lañ yoo xam ne tey liñ lay wax ak li am fii bokkul tey bàyyi nii dara amu fi tey instant yi fépp fooy defar yaakaar naa àll beeg yooyu fii moo ëpp importance te ab tali jàpp naa ne oto wur fee mën a foncé ñi ñi nga xam ne nag ñoom nga fi yebal ñu dikk ne dañuy vérifier sànc duñ agsi fii buñ dikkee dañ lay wan loo xam ne nekkut ak fii fi ñu war a defar dëgg dëgg dëgg mooy fii kilifa yi nga xam ne nag ñoom ñoo ñoom ñooy ñëw ci yow naan la Touba baax na Touba nii Touba naa fii bokkul fii fi baax oh, fii baaxul lii nag mën nañu ne benn la ci jafe-jafe yi nga xam ne nii askanu Touba ñu ngi koy dund ci ñàkk am ndox ak ñàkk ay yoon yu baax